بوكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دلو يدلو دلن وخ إنا لله وإنا إليه راجعون دلن يقل كنو أدنا سنو ولر وتدبي سنو سرين سنو سبب تبارك الله الأستاذ أحمد با مين خمل نبتي لانغوب تجاني تبارك الله نخمم نون دندو لا تجاني دقل دندو بارك الله واي نك نيكون دالي مولانا الاسلام الحاج ابراهيم نياس رضي الله تعالى عنه نيكون مقدم تي بي بي واي نك مقدم تاريخ بي في جوغي نك تاي كوي جال ديكو جال مبولم امه بي واي ديكو جال مبولم تاريخ بي اك تاريخ تبارك الله بروم خم خم لوون يركات لوون جانغال كات لوون كو يالنا مايون خيرن تي جانغال اك تي فخه بني ديغ waaw ku ku ku amoon pédagogie la kon ni ñu ko mën a waxee waaye jàmm côté yàlla la woon ku ñu doon jataayu course la waaw fa tabarakallahu ñëpp ràññee nañ ko defe naa rek jamono yi yëpp yàggul am na benn vidéo bu doon daw di ci waxtaan ci Serigne Babacar si lu yéeme waaw ak ak Cheikh El Hadj di ci wax si seen mbir yu yéeme loolu nag nit ku baax a ko man ndax mun nga ne ca xadara bi laa bokk rek tabarakallahu yem ca waaye nag ku yaatal ak kuy dox doxinu mag ñi mooy doxalee noonu te moom nag noonu la doon doxalee te ñëpp seede ngeen loolu lu sax Ahmad Ba kon bu ko yàlla jëlee nag tabaarakallaahu jotal ko ñëpp ci tur bi Wilane TV ñu ngi koy jaal mboolem umma islamique bi rawatina euh, tariqa tijaan rawatina turqu suufiye yëpp tabaarakallah di ko jaal daal pays bi Mawlana Cheikh Ibrahim yëpp jaal ko gine ci bopp bi Mawlana Cheikh Mouhamadul Mahi Euh, cheikh Mahamadul Amin mi nekk ci Dakar ñu gën koo xam ci Baba fa tabaarakallaahu cheikh Mahamadul Makki tabaarakallaahu ñëpp rek cheikh Mahamadul Mansour Ibrahim waaw cheikh Abdul Malik tabaarakallaahu njabootu balana cheikh al islam yëpp ñu ngi leen koy jaal waaye teewuñu waa kër Baye Daam tabaarakallaahu Baye Ahmad Daam waa kër papa cheikh ñoom ñëpp rek ndax seeni njaboot la woon ñu amoon na ñoom alaaka la ñu fa tabaarakallaahu waa kër papa Haadi tabaarakallaahu ñu ngi koy jaal Baye Haadi ak mboolem njaboot gi yëpp suñu waa kër Baye Cheikh Abdou Wilane ñu ngi leen koy jàll Cheikh Baye Awal fa tabarakallahu ñoom ñëpp la amoon ak jàmm ci pay bi ak ci tarixa bi waaye rawatina di ko jàll waa xadara malikiya Serigne Babacar Sy Mouhamadul Mansour ak mboolem kilifa diine yi rek ñuy wax rek ku ko jot nga jàng fatiha salaatul fatiha jàngal ko onze lixlaas ñaanal yàlla teeru ko aljana wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.